ne présidence di wax ci euh, conseil constitutionnel ñaari pàcc la pàcc bu njëkk bi euh, wax na ne li conseil constitutionnel wax dina ko jëfee ba mu mat loolu dañ ko ci félicité di wax ne loolu lañ doon xaar ci moom mais ci communiqué bi dafa am pàcc boo xam ne daf ci annoncé ay concertation consultation foofu lañ ne wëy consultation wëy mais warul nekk ay waxtaan yoo xamante ne dafay tax euh, délai bi ñuy def élection yi romb le 2 avril loolu rek mooy bémol bi nga xam ne mun nañ ko indi ci li mu wax lépp lu mun a am muy consultation muy constat lu mu mun dem warul def ba ñu dépasser délai 2 avril bi pour organiser élection yi